waaw à part bi ma wootee ba pare ma ngi gis ne nit ñi ñu ngi génn. ñoo waaw waaw ni ñi ñi ngi génn massif di génn ndànk-ndànk di voté waaye ñuy wax ñi génn génnagul rek ndax temps nawet lañ nekk xam heure bu nekk mën na taw que ñëpp teel a génn def seen devoir citoyen parce que voté moom dafa war nit ku nekk danga war a voté waaw ndax boo voté wut bu ëllëgee ku gañee yow bu ci wax dara keneen ku perte bu ci wax dara da nga war a génn dem voté ji def sa devoir citoyen voté day loo xam ne dafa war nit ki kon nañuy dem voté ji bu kenn xaar kenn na kenn ku nekk gën gën def sa devoir bi nga war a def waaw di wax nag non non fi mu ne nii actuellement vraiment ñi ngi génn ndànk-ndànk ñi ngi vote ji di wax rek lañ ko def affaire u gentleman fair play kenn ku nekk rek lu urne yu génn rek nga nangu loolu waaw urne yu lu mu génn rek nañ ko nangu te def te xam ne ñun ñëpp Touba lañ dëkk te duñ jóge Touba kenn ku ci nekk rek boo xëyee di nga gisaat sa morom kon nañ ànd dem ci jàmm vote ci jàmm ñibbi ci jàmm ku yàlla may victoire bi nga xam ne yow la ko may nga fete ko ci jàmm sa morom yéene la ko maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax daal non non dañu war a génn vote ji da war a génn vote ji kii na di rien constant danga war a génn vote ji su fekkee ne yow oh, da nga bëgg benn bokk yaakaar da ngay dem voteel ko mais boo toogul bu ëllëgee lan ngay wax bu dee keneen nga bëgg tamit da ngay génn dem voteel ko voté dafay devoir boo xam ne citoyen bu nekk daf la war kenn ku nekk ñu ne ci kër yi nañ génn dem voté ji parce que voté dafa war nit ki doomu adama bi dafa war voté ku waxul dara rek danga faro nit ki da ngay far fenn mais bu ñaar di xëccoo am ga koo faral mais li koy mandaal gaa nag mooy nga dem vote ji nañ dem vote ji waaw. ñi ñuy dégg ñooy dañoo andi ay nervis ci biir dëkk bi looy man loolu ah xëy na man gisaguma ko nag parce que maa ngi ci maa ngi nii suba ba léegi maa ngi wër parce que loolu du affaire u gentleman xam nga lan la nañ ko def fair play kenn ku ci nekk daal nañ jéem a xool démocratiquement les cartes lu carte yi génne rek ñu d'accord ci loolu nañ nekk ñun ñëpp ay démocrate démocratie weetuwul weesuwul nga xam ne fi sa aq yam fi la sa àqi moroom commencé ba not ki lu ko ci yàlla may nga nangul ko ko loolu kenn ku ci nekk rek loola yàlla may nag ñi des nañ ko nangu waaw man daal dama bëgg ñu def ko fair play rek def ko affaire gentleman looy wax ñi nga xam ne dañuy woote ba pare di dañu war a ñibbi parce que loolu ci bokkul ci loi de vote ku voté ba pare danga war a dem ñibbi parce que loolu dafay créer ay scandale waaw voté nga demal ñibbi wala nga dem sa koñ di seet ñu voté gul nga leen pour ñu ku nekk am nga droit ku nekk am nga droit dem sa koñ xool ka nga bëgg a nga ne leen voté leen ko mais boo ñëwee ba ci urne yi nag amatoo droit benn droit naan voté leen kii wala voté ke kii loolu du yoon. delloo delloo ziar docteur Manta Mbow coordonnateur LD Yeesal euh, le parti de Modou Diagne Fada euh, di wax rek nit ñi nii voté nañu voté bi ci vote jóg génn nañu si urne yi léegi voté di ñaan nit ñi ñu génn voté comme ni ko suñu yaay waxee léegi di wax nit ñi comme ni ñu dalee. ci euh, campagne bi ñu def ko si jàmm macha allah génn gis ci benn incident bu leen taw teree génn voté bu leen naaj teree génn voté te ñoo ngi génn macha allah taw voté naa ci ci ci taw ci période taw loolu taarix la donc ñu bëgg ñëpp génn voté def ko si jàmm ak salaam ku voté ba pare nga dem sa sa kër ñibbi te ñëpp ñi nga xamante ni ñoo bokk benn bokk yaakaar ñu leen di lancé waat ñu demaat ci kër yi bañ a taxawaalu ci bureau yi dem jëli nit ñi ñu gagné ndax voté yi nag dañ koy gagné. te boo koy gañee da nga ciy sonn ci terrain bi donc di ñaanal ñëpp jàmm comme ni ñu ko defee fii moom ñun ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk mbaay bu ngoonee ku gañee ñi si des nañ la féliciter après le euh, Sénégal continuer Touba continuer donc lii daal moo amoon li ñu doon wax di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam merci beaucoup. baax baax ñoo ngi leen bu baax Serigne Ndiaye la maa ngi jóge fii ba tali bu bees di rafetlu vote bi bu baax a baax ndax woote ñëw nañ si jàmm woote si jàmm mi ngi taw mais ay citoyen lañ bu doon taw ba fii ba fajar sax jaral nañu ñëw dañuy génn ñëw voté demaat ndax loolu moo ñu war ah. suñu wareef dañ koy dañ ko dañ koy def fu ñu mën a nekk ñëw leen woote si jàmm na ñëpp ñëw woote si jàmm ñu ñibbiwaat si jàmm que que le maire ah. na Sonko jël réew mi nag